Thank you. asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokki àddina rawatina mbokki senegal rawatina nag mbokki njàmbur di lugaloo kër mbër gu bale ñaan eh, defe naa ne su ngeen gisee sama taxawaay bi gis li sama gannaaw xam ni bis jub si na ban bis la ñu ni tabaski yàlla nañ ko fekke suñu ko fekkee yàlla nañ ko tal te it ku wax tabaski wax xar ba tax na nag bergerie Mouhamad Fall def na nem daan defati jaamu yàlla ci jaamam yi mooy xar yu baax ak njëg goo mën a am xar yu baax yu lay xaar mi fii ci bergerie Mouhamad Fall bergerie Mouhamad Fall fan la nekk ñu ci bu ñëwee monument bi jëm Ndakaaru xool ci sa loxo ndeyjoor da nga gis bergerie bu yaatu foofu la bergerie Mouhamed Fall su fekkee da ngaa jugee Ndakaaru mel na ku jëm Ndar avant nga àgg ci monument bi xool ci sa foofu da nga fi gis bergerie Mouhamed Fall xar yu baax yu am solo wàcc na fi njëg goo mën a am bu ko yéem bul yéemu soo ñëwee bergerie Mouhamed Fall mën nga fi am sax xar moo tabaskee incha allah ba tax nag soo bëggee jot bergerie Mouhamed Fall da ngay def 77 defal 204 23 31 wala nga def 77 6 53 53 di nga jot kenn ci bergerie Mouhamed Vall mu gidd la ànd ak yow nga ñëw jël sa xaru tabaski mu baax ak ci njëg gu baax goo mën a am mën a yóbbu sa xar tabaski ak sa njaboot yàlla ko yàlla defal kon nag mbokki njàmbur mbokki Sénégal mi ngi noonu bergerie Mouhamed Vall xar yi agsi nañu xar yu baax agsi nañu xar yu am solo ak nañu ñu naa la bul yéem sa poche waaye nag bul xeeb sa poche saa boo ñëwee bergerie Mouhamed Vall nga xam ni ñëw na ngir jaamu yàlla ci jaamam yi ci xar yi ndax it moom yoon xar yu baax daran am waaye ren dafa rawat ci ba tax na kenn ko nekk waajal ko ñëw ci bergerie Mouhamed Vall ngir am sa xaru tabaski mu baax kon nag mbokk yi mi ngi noonu bergerie Mouhamed Vall mi ngi leen di xaar waaye nag jokkoo ak ñoom ci 77 defal 204 53 53 wala nga def nag 206 23 31 bu ko defee da ngay daal di ñëw bergerie Mouhamed Vall am xar yóbbu ci sa kër tabaski ak sa njaboot jazakallahu xayran yàlla nañ fekk ay déwén yu bëree kon nag mbokk yi mi ngi noonu bergerie Mouhamed Vall saa boo jugee nag Louga jëm fi nga xam ne mooy route nationale bi jëm Dakar boo ñëwee ba ci monument bi soo ko weesoo bala nga agsi ci jàkka ji xoolal sa loxo ndeyjoor bergerie Mohamed Vall mi ngi foofu su fekkee da ngaa jël route nationale bi jugee Dakar jëm Ndar boo passé jàkka ji bala ngay agsi ci monument bi en face gendarmerie xool ci sa loxo càmmoñ foofu la bergerie Mohamed Vall ne saa boo fa ñëwee rek xar yu baax yu mat tabaski ma nga fa soo ñëwee sa aajo dana mën a faju ci bergerie Mohamed Vall incha allah